non fi ngeen taxaw wóorul wàcc leen eh. wàcc leen wàcc leen bu leen yàq wàcc leen. Ousmane daa ñëw ba siège Khalifa Ababacar Sall. fa lay defee discours Ousmane fi mu taxaw. wàcc leen ay coono moom mooy siège Khalifa Ababacar Sall. wàcc leen waaw leen wàcc leen ay coono leen Ousmane Sonko. wàcc Khalifa Sall lay defee sa déclaration comme ça waaye laata mu confirmé ñeneen ñi dañuy daal di jël parole ba noonu. salaamaaleykum mbokku Grand Yoff président de Thié pour le moment pour le moment Grand Yoff jël na raw gàddu bi ma ni waa Grand dafa am lu ngeen ñu depuis 2019 2019 président le président Ousmane Sonko était candidat à l'élection présidentielle Macky Sall et de son argent, Grayoff est en 2019. Ça veut dire que nag déglu leen déglu leen déglu leen s'il vous plaît yéen waa Grayoff yéen la ñu seet si déglu leen ñu waxtaan ak yéen. 2021 2022 kii nga xam ni mooy bàyyu képp kuy def politique fii Sénégal déglu leen déglu leen leen mu diriger la liste Yewwi Askan Wi bu leen ko fàtte am ñu doon jooy di ko tarbiyu pour nekk candidat mu yóbbaale leen ci générosité am ñu gagné fii Grand Yoff grâce à lui. 2022 ñu yóbbu ay député à l'Assemblée nationale duma leen duma yu metti fii grâce à lui ñi nga xam ni ma ñi nga xam ni. dañuy jéem a diir mbagg ak moom ñooñu 8 pour cent la amoon fii 2024 élection présidentielle 286 000 voix la ñu amoon fii ci Ndakaaru xam ngeen lan mooy 286 000 voix ñooñu noonu 28 000 voix la ñu amoon Ndakaaru yëpp 28 000 rawe nañ leen 260 000 voix léegi ma leen di laaj yéen waa Grand Yoff yéen waa Grand Yoff est-ce que di ngeen def moins que 2024 yéen waa Grand Yoff yéen waa Grand Yoff Ndakaaru yéen waa Grand Yoff vous êtes le Sénégal en miniature vous êtes Dakar en miniature su ngeen defee score bu raw li ngeen defoon 2024 fii ci Grand Yoff am na ñoo xam ni am na ñoo xam ni dañuy sukuraat xam ngeen nan mooy dañuy waaj a dee ñu ngi sukuraat ci politique comme nag dañoo nekk sukuraat dañoo nekk sukuraat dañoo bëgg le 17 novembre ñu yóbbu leen ban sax politiquement ba faaw kon le 17 novembre ici à Grand-Yoff

bàcc di bàcc di bàcc di bàcc di kon ñu enchaîné ak honorable Tambédou coordonnateur nekk fi ok mais normalement président Ousmane la ñu waroon jox directement mais comme Mbappé fii la dëkk faaw mu sànni ci kàddu pour deux minutes avant ñuy jox président Ousmane. asalaamaaleykum askanu Grand Yoff. dama ni président Ousmane Sonko. mbooloo bi teeru la fii xam nga lu tax ñu teeroo la nii parce que dañ lay accueillir en libérateur lu tax ma ne libérateur mooy depuis 1996 dafa am benn vieux dinosaure politique boo xam ne moo leen jàpp otage vieux dinosaure politique boo xam ne depuis 2001 ba léegi dafay gérer suñu collectivité territoriale mooy suñu mairie par procuration dama ni élection présidentielle yi ñu weesu yéen askanu Grand Yoff yéen a fal le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec 64 pour cent 64 pour cent yooyu nag man dama ko xeeb lool lool lool lool lool li ma bëgg mooy dimanche bii di ñëw wax na ko sànq Abass dafa am xeetu politicien yoo xam ne xam-xam du ñu wax saaga la ñu xam violence la ñu xam randal alalu réew mi la ñu xam trahison la xam il est temps ñu débarrasser wu si ñoom définitivement ici à Grand Yoff fii ñu nekk nag fii ñu nekk yéen a gën a xam ne problème yi bëri na lool lool lool lool bu ñu waxee problème mu assainissement yéen a koy dund bu ñu waxee problème mu sécurité ñun ñëpp ngi koy dund bu ñu waxee problème mu chômage cadre de vie lépp ñu koy dund bu ñu waxee encombrement occupation de la voie publique ñëpp a koy dund mais loolu est-ce que mun nañ ko régler sans une majorité confortable à l'Assemblée nationale bu ñu ko bëggee régler nañu may le premier ministre Ousmane Sonko une majorité composée au moins de 160 députés pour changer définitivement xar-xarum Grand Yoff wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf kon danoo war enchaîner caravane bi léegi da ngeen di teewlu. ki tax ngeen yendu ci naaj bi bi ñu duggee Dakar ba tey ngeen topp ci sonn leen tàyyiwu leen kooku mooy kan DJ